daa bàyyi làmb ji nekk ci football bi fu mu toll parce que nee na mag daa tëj làmb ji waaw ca un deux quinze seize saa yi neexul jàppale nag xamul dara virus bi war a jóge ci dëkk bi ah. waaw ah ñun joueurs yi ñu mën yi quoi bilaay nawetaan yaa ngi ah, bi waaw saa yi joueur laa ah yow amul la football waa waa fii ñoo may waxaale nii sax. waaw ah, waa Liverpool ñoo may waxaale nii pour jënd ma gaañ. Ah. waaw def nañ ci man deux millions deux milliards ah. deux milliards dollars waaw. yii yow seer nga. seer naa de billaay waay. yéen yéen mooy jour à part Neymar maa gën a sóor seer si mbond bi. waa Neymar. Ah. waaw. ana ana Sadio ma non instant yii maa ngi soog a lii nii gars yi maa ngi sama sama sama sama sama 19 ans instant yii. Hmm. waaw. kay maam Serap Fall. waaw la wax loolu. waaw ñemal ñu ñoo xool.

Rajma bu ko yom raj gi nga entraîné wul lii la fi nekkee. lekk meew tëdd. lii loo ko may doole de lii moo ko may doole. nga ko de. in kaay biraayera waaw. biraayera de ah. nekkuñ foofu de reere ay ay fonde yi de. xamul dara caaxaan lekk meew tëdd de la wul. waaw entraîné wul de xale bu ndaw.